Je pense que nous sommes très bien tombés. Mhm. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un ministre mhm. qui, peut, euh, qui, peut mieux comprendre cette affaire que cette dame. Mhm. En 2017, la contestation, la crise du mouvement a commencé en 2017. Elle a commencé à Dakar. au mois de juillet. Euh, Dans Dakar, on a commencé. En 2017, nous nous, nous, nous,

mais Madame John a été brave. malgré tous les tous les remous de Amadou. yéeg wàcc lu ne mu def ko dugal ci ministre bi dugal ci autorité yëpp. mais Madame John. tuddal turam. dañ da nga wax Khady Diène Gaye Khady Diène Gaye notre Khady Diène Gaye ah. moom mu ne day ñëw superviser suñu AG. parce que taxi yi ak loi yi ak règlement bi. ñoo ko permettre. Et ça s'est passé euh, euh, au stade de l'amitié. C'est ce jour-là que j'ai découvert cette dame. Et c'est ce jour-là, la administration Sénégal a a une valeur. jour Bobo. parce que jour Bobo, c'était très tendu. très très très tendu lu ne xew fa bo len wowe Khalifa Diakhaté dina len ko nettali bo len woowee ñom Ablaye Ndiaye yi nekk fii ñoom président ODCAV yi dinañ leen ko nettali boo leen woowee Mountaga euh, mun. Euh, euh, ak Sadikh grand Sadikh. grand Ababacar lii dina len ko nettali mais moment yu yu yu métti mais la dame a tenu bon et elle est restée toog superviser ko jour boobu man maa ko doon assister sax ci supervision bi superviser AG bi ba mu jeex et si boobu bu amul woon kon man du ma toog fii nga ma président on ma donc nous cette crise du mouvement nawetaan cette alternative du mouvement nawetaan bu elle ba exister ba ñu jouer ba créer une structure bu tudd être en ba ñu nekk maintenant une alternative sérieuse ba di am subvention au niveau de la présidence de la république di def suñu ay phase nationale di ñu am des joueurs yu sont dem clubs ci club yi professionnels

xam na yàgg na fi. il paraît que boobu ba léegi moom ak saawaay rek la ñu nomewul ci ministère bi. ci ci poste de responsabilité. moom saawaay waaw mais yàlla ñëw na. foofu la foofu la fi may terminer mooy. gis nga sportu Sénégal il faut que mu indépendant xam nga indépendance bi ñuy wax nii. sport bi indépendant wul de. parce que CNOS ni mu ciy déroulé ak ni mu ciy doxee. moo ñu mayul indépendance boobu wax naa ko. xam nga lu tax parce que dañu amoon un président de CONOS boo xam ne day xëy dugg kër biir kër président président dugg ci otoom di dawal moom mu toog ci wetam on a vu ici des ministres la wax nii ministre de la république yu defal Sénégal lu ne ñu dindi leen à cause du CONOS te defuñu dara parce que dañu demul rek en France affaire yu ay affaire ki, kii ñu ñu ñu mu am ay problème de protocole ñu commencé ko attaquer et puis ñu guerre ko et puis mu dem je parle sous le contrôle de de de de de Wade et de de Seydina Diagne. Mhm. li may wax dama ko xam. Mhm. Ibrahim Wade. Ibrahim Wade. du CROSS le premier vice-président du. tey tey Seydina Diagne c'est le secrétaire général tey xoolal tey dañu bàyyi tous les événements mhm. sportifs yi Sénégal waroon buuxante pour organiser ko. à cause de lan. les JO de. les JOJ 26 les JOJ de 2026 JOJ rek la ñuy wax JOJ rek JOJ JOJ. mais tey JOJ bi nañu xool nu muy demee. Sénégal lan la ci am réellement. bu ko organiser ak ak ñan la koy organiser. non c'est une bonne chose. ak